merci Adjaratou Betty on est en train de retrouver le réplique tant attendu ah, avec notre marabout le grand chroniqueur qui vient d'aller à Paris avant qu'il arrive à Paris ce réplique on le fait en français aujourd'hui avec monsieur Serh Bara Cheikh Bara Ndiaye borom def gis bonsoir بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه فلا تحلم النفس ما أخفي لهم من خرة أهين الجزاء بما كانوا يعملون ماغي لي نوي لاجي سانجوغو تباب لا واخنا نوي بيتي di nuyu ñi seetaan ci réew mi ak bitim réew di jiital ci nuyu bi Cheikh Mouhamadul Mountakha xalifa général de Mouride. Uh-huh. ñu may nuyu nii kenn déggu ci français day bàyyi moom nuyu li ma pare rek. nuyu sëñ Mountakha xalifa général de Mouride. nuyu Cheikh Mouhamadul Moustapha ibnu Cheikh Sidil Makhtar Mbacke di nuyu Soxna May. mu uh-huh. Cheikh Sidil Makhtar. Uh-huh. di nuyu Serigne Khadim Mbacke. mu Cheikh Sidil Makhtar. Serigne Khadim Bode di nuyu Serigne Moula Haysa Serigne Abdou Samad Mbacke. Mm-hmm. nuyu serigne Sidi Ahmed mu serigne Abdul Aziz bar ak serigne uh, Ahmed mbake serigne Habib Diop serigne Khadim Diop mu soxna May di ndokkeelum jabot ak serigne Abdul Aziz bar gep ci bisop si Abdul Aziz bi ñu genn ci dimanche ci di ñaan yalla ñu fekke wat ko yu bari amin eh, di nuyu Moulay Hassis gey di nuyu serigne Makhtar Diouf ak sama najay sama serigne serigne Khadim Lo Gaydel ak kep ku ñuy seetaan ci bir rew mi ak bitim rew waaw nah. waaw monsieur monsieur Sanjogo vous écoutez. <laughs> ça va la macha allah euh, balaa kii boo tax ñu ne bon dañu ko démarrer mais Cheikh Bara euh, man de wax dëgg fa yàlla euh, bi ñu annoncé keroog sa yoon wi nga xam ne bi yaa ngi koy waajal tey yàlla na la sunu borom teg ci yoonu jàmm nga yàgg ci jàmm ak salaam boobu ba nëgë coow li dafa bari man fu ne la ma ay nit woo ne ma saa. waxal ak Cheikh baara Ndiaye daal vraiment buy dem na moytu parce que mën nañu jël ay bagages dugal ko fii ak def nii maanaam daal gars yi daal dafa mel ni seen xel dalut daal que ni ñu def la loo xamante ni bii mën nañ ko def ci biir daal say bagaas ak et cetera ñii sax nee nañ ma na Cheikh Bara yor saag à même rek bu mu yor beneen saak di ko dugal ci kiiw avion yi et cetera en daal coow li bari na ci depuis que nga xamante ni bi affaire bi daal wax dëgg fa yàlla kii nañ ko def noo gisee loolu est-ce que yow jot nga tamit defe naa ay kii yu mel noonu. wala ko nit ñi xam nga. Mhm. maa ngi leen ciy sant ak mbëggeel la rek. ak euh, xëy na yéene nit ki jàmm. Mhm. waaye nag jàpp naa ne euh, ñaar da cee nekk. Mhm. mooy loolu defe naa ne euh, dalal nañ ci suñ xel bu baax daal. li tax ñu dalal ko nag mooy réew mi ay kilifaa fi nekk ak nit ñu baax ñoo xamante ne. xëy na am na yoo xam ne ci yeneen réew yi nga koy dégg. waaye mm-hmm. suñu réew mii moom. Mm-hmm. defe naa ne nag wax dëgg yàlla ñu fi poireaux ak ñu fi opposé wu. Mm-hmm. yëggaguñ foofu daal. Ah. waaw loolu moom wax dëgg yàlla yëg yëg seeguñ foofu nag. fu ñuy jëlee bagage yi jàmbur. waaw di ci def ñu ci war a def defe naa ne dégg ko. moo gën a yomb gis ko. parce que ñu nekk ci aéroport yi. ak euh, ñoom duudu ka defe naa ñoo yor loolu ak ba ci président Macky Sall ak ñëpp nag xay naa mën naa am sax. Euh, Euh, maanaam mën naa am nañ ay ñoo xam ne ñoom ñoo ma gën a dangereux fuuf ci réew mi mm. te bu ñuy génn dañuy génn ci jàmm ñëw ci jàmm parce que nag loolu moom wax dëgg yàlla Sénégal bul caaxaan jeexee nag mm. euh, benn bopp la man nag ñaareel dama dul dem ci njort ak foog mm. waaye li ma xam te xam ko daal mooy loolu moom yaakaaruma ne xel xalaat na ko bi ci desit nag mooy mm-hmm. ay bagage mom bagage jambour mom moom bagage yi la tudd bo gisee nit jël la ci biir tubé nit sax diko tuddé bagage loxo borom do nga fa wara dem mm, waaw kon nak li ñuy liggéey ñoom ay bagage la <laughs> nañ bayyi bagage yi mu nek bagage jambour <laughs> waaw jere jere Cheikh Bara li nga wax do leer loxo borom ba fa wara dem dem <laughs> sha Allah Cheikh Bara ñay borom def gis ginaaw bi nga joggé ci lool Cheikh Bara euh, ciow li bari na ci li nga xamanteni bi moy alaaji mbàkk yu fay foofa nga xamante ni fii moom la ñuy wax ca masaalikul jinaan vidéo yaa ngay naaw ginnaaw bi nga xam ne def na discours ba pare ku ci ne jóg na ñi dal ci kawam ci discours bi nga xam ne def na ko hmm. ci masaalik ñii ne discours politique la waru koo woon def hmm. nan nga jàngatee li nga xamante ni bi xew na ci semaine bii ñu génn ak alaaji mbàkk yu fay ak un milliard bi mu joxeek hmm. yooyu mujj gi daal discours bi gars yi di dal ci kawam noo gisee mbir loolu nag balaa ma ciy ñëw sax danga may njëkk may rek ma ndokkeel waa Tiwaawoon. Hmm. ak mel ne sëñ Babacar si Mansour. Hmm. di leen mastaw ci xew-xew yooyu fa xewoon. waaw waaw dëkk bu sell boobu di Tiwaawoon. Hmm. ndokkeel itam suñu jur suñu sëriñ. Cheikh Mouhamadul Mahi Ibrahima Niass. Ah, waaw macha allah waaw. di xalifa Alaaji Ibrahima Niass. yàlla may ko loo xamante ne ndamul diine la ndamul lislaam la. ndax suñu président yi ak suñu. société civile yeeg suñu nu mu tëddati yi fi nekk. Mhm. dinañ di jël avion bi di naaw di dem ak dikk fu ne ñu ne ña ngi fay dem wëri jàmm. waaw waaye ñoom nag c'est rare la ñuy wëri jàmm andi ko. waaw waaw Macky sax ngay demaat. ngir wëri jàmm jëm ci Poutine waaye yàlla na jàmm waaye ñoom wëri jàmm andi ko moom dafa jafe ci ñoom lool. Mhm. bu dee nag suñu kilifa diine yii nag. Mhm. amaana see ku mel ne Cheikh Mahi Ibrahima Niass lii mu def nga xam ne maanaam lu néew sax lay jóg. di wëri lu mel noonu. waaye nag du ko wërit te yàlla di ko gàntal ndax dañoo jubook seen borom Mm-hmm. te nit nag bu jubóog yàlla mm-hmm. lépp lu dul yàlla rek maanaam ku ragal yàlla lu dul yàlla ragal la ku wekk mm-hmm. yàlla lu dul yàlla wekk la bëgg yàlla lu dul yàlla bëgg la noonu la demee boo defaree sa xol defar sa digganteeg sa borom maanaam lépp loo loo loo dagaan ci sa digganteeg yàlla la bu jafee parce que lii Cheikh Mahi rek la tey waaw union euh, européenne mënu ci dara union africaine mënu ci dara ONU mënu ci dara armée ak i fetal akub xeex mënu ci dara ndax ñoom ñoo ñu ñu doon atte fetalante nañ ay ati at mënuñ ci tus doole mënu ko dara mënu ko maanaam nag biñ noppee nag Ah, dañoo delluwaat ca yàlla mhm. maanaam mooy delluwaat ci nitu yàlla yi ñu la seen mbir loolu nag liñ ciy jànge ñun société Sénégal itam mooy ñu gën a wekk kilifa yi mhm. te gën leen a fonk mhm. xam ne bu ñu demee ba àgg ci kenn ci suñ biir di wolof ah. di nit ku ñuul di sénégalais naan dama ne ñu ne ah maanaam yàlla mën koo cërale ba mu jóge fii dem ba Soudan nga xam ne bokkuñu moom aw làng bokkuñu moom sax ah, ab kii waaye lislaam rek mën a tax ak alaaji Ibrahima Niass mañ jàppante loon kóllëre mhm. mën a tax ñu mën a teg seeni ngànnaay ci suuf ngir ne Baye Niass ñëwut waaye doomam a ñëw waaw kon nag ñun ñii nga xam ne Baye Niass ci suñ biir la bokk mhm. sëñ tubaa ci suñ biir la bokk Alaaji Malik bokk ci suñ biir mhm. buñ leen gisutit seen njaboot gi dañ leen di jàpp ni ñu jàppe woon ñoom sëñ Touba te xam ne bu ñu leen soxla wutit mhm. àdduna soxna lañ leen dëgg la su ko defee di ndokkeel euh, Alaaji Mbàkke yu fay moom nga tudd ci ndanuk sëñ Muntaxaa gi xam naa nag mbiram tamit am na ay jàngat loo xamante ne ci côté diine lay am waaye dana ci am loo xam ne laal na politique ndax jiitu politique réew mi dafaa ñëwoon waaw ca Masaalikul Jinaan looloo tax kon mu laal politique. Mhm. liñ ci jàngat nag en tant que diine. waaw di sant El Hadj Mbacke yu fay. parce que mhm. taxawaay bi rafet na. Mhm. Euh, jëf ja rëy na. waaw tey soññ na murid yi jiital leen. jiitu leen. ba indi sëñ mun taxaa taxawu ko ba sëñ bi dellu ci jàmm. kenn mënu ko ci loolu moom ñëpp ñu ngi koy sant di ko ci gërëm mhm. loolu moom amu ci lenn lu ci nit di joxañ aka këfin mhm. leneen luñ ciy joxañ rek mhm. maanaam aspect politique la mu tàmbalee ci jàngat ko ci politique te yem ci loolu waaye bu ci loolu weesoo day suñ kilifa ndax bu ko bu jiitee njabootu sëñ tubaa gi fii ci ndakaaru dañuy bokk ci biir ndax ñun ndakaaru lañu féete te njabootu sëñ tubaa lañ a doon kon mbàkki yu day nekk suñu sëriñ di suñu kilifa euh, bu nag lu ñuy jàngat ci dikkuk Macky Sall gi balaa boobu ñu njëkk damay jëkk ne moom maanaam jëmmi masaalikul ji naan mhm. teertu fa sëriñ bi xëy teertu fa président defe naa ne lu xat la lu xat la waaw maanaam mhm. teertu fa sëriñ bi ba noppi bëgg faa teertu président rek maanaam moo njëkk a xat waaw bi ci mooy benn micro ñu sant ci sëñ bi ba noppi bëgg caa président maanaam day xaw a xat mhm, day xat waaw loolu moom laay njëkk a wax maanaam visite bi daal daa war a nekk visitub sëñ Muntaxa ñu tàmbalee ca moom yem ca moom defe naa ne kon bu boobaa polémique yu bëri du am waaye le fait que ñu bëgg ne sëñ bi day ñëw bu noppee ñu noppi naan diw day ñëw mm-hmm. ah wala jëfe jërëjëfe sëñ bi noppi naan jërëjëfee diw loolu day indi ay ay ay ay ay jafe-jafe mm-hmm. ndax jëf yi nu jëf yi nu kon pay yi mënuñoo bokk waaw bu lolou jalle mhm. dañuy njëkk ñëw ci jëmmi ma euh, serigne Mbacke bopam manam fonction bi mu yor moy mhm. représentant serigne Touba motax mu mën dalal Macky Sall mën dalal serigne Muntaxa waye représentant serigne Touba gogu mu yor manam mo représenté serigne Touba ci Dakar waye ci lan ci lan waaw mhm. loolu moy bat bu jëk biñ ko wara biñ jëk wara war posé ci lan manam ci lan waaw loolu bat question la question kenn ko ne man nako ko firil sa bop mo fi représenté serigne Touba waye ci lan ci lan bi ci des mooy représentant gi mu fi représenté sëñ Touba. waaw maanaam ñaar ñaari ñaari ñaar ñaar la ko seqal ñaar la ci sañ. ñaar la ko seqal. ñaar la ci sañ ñaar la ci sañ. ñaar yi ko seqal mooy. Mhm. jële ci sëriñ bi. waaw indi ci donga yi. waaw jële ci donga yi. yóbbu ci sëñ bi. waaw defe naa ne ñaar yooyu rek la ci. waaw ñaar yooyu waaw léegi nag kàddu gii mu doon wax ak Macky Sall. waaw maanaam ci sëñ bi la jóge. wala ci donga yi. Hmm. bu wut ci sëñ bi jógewut ci donga yi kon war nañoo laaj fu mu jóge. ah kaddu yi waaw wax nga maanaam <laughs> c'est vrai répété nga ne kaddu yi nga xamante ni bi moom la yëkkati waaw nga ne ci sëñ bi la war a jóg wala ci doog léegi fan ñëwaatal laaj naa damay laaj rek ba xam ci kaddu yooyu mu doon wax Macky Sall kii fay na dégg sëñ jóge ak maanaam ñaar la yor waaw maanaam li mu yor ñaar la ko séqal ñaar la ci mm-hmm. sëñ mooy jële ci sëñ bi yóbbu ci donga yi jële ci donga yi indi ci sëñ waaw léegi nag lii mu doon wax ci sëñ bi la jóge wala ci donga yi su dee jóge ci bi jógewut donga yi fu mu jóge waaw looloo jël. loolu moom donc moom ñu ko dal ci kawam. ab laaj kon moom jógewut ci ñoom. bi ci desit mooy <laughs> àdduna moom. bu lépp politique daa am lu politique am ko wërta ndax par poste maanaam mbàkki yu lim yor. waaw kenn mësta politique ba jot ci te moom politique ba jot ci. waaw dëgg la kon naa war nañoo bokk xam ne lim yor moom lu mm-hmm. loolu benn affaire la ci. waaw bi ci desit. Mm-hmm. mooy maanaam alaaji mbàkki yu. dafa yàlla daf koo may benn affaire. mooy yàlla da koo may lu mu jëfee. may ko ndigal lu mu ko jëfee mm. may ko xolub nangu ko mm. ndax am na ñu am luñ jëfe waaw te jëfuñu am loo am ñoo xam ne am nañ luñ jëfe bëgg a jëf waaye kenn mayu leen ndigal waaw am ñu am ndi ndigal li waaye yàlla mayu leen xol bi moom nag am na am na am na ko mm-hmm. man na ko mm-hmm. defloo nañ ko ko mu def ko kon liñ mën a wóor mooy ngërëmul sëñ tubaa am na ko mm. te nag nit nag waaw bu fekkee dafa am lim bëgg. Mhm. day moytu ko amut lim bëgg. Ah. Macky yu ndigalul sëñ Tuubaa dong la bëgg te am na ko. waaw Macky nag ngërëmul bakkanam lay wër du ko am. Hmm. kon ñaar ñii buñ dajee kenn ki day moytu kenn ki. mooy borom caq bi day moytu baatu borom baatu neen bi. Macky Sall ngërëmul bakkanam lay wër du ko am. Macky yu ngërëmul sëñ Tuubaa lay wër te am na ko. Hmm. bi ci desit tama gis ko ci mel ne luñ mat a jàngat la mooy. Macky yu fay suñ borom da ko fee teg fii ci Masaalik. waaw yàlla dogal. Euh, muy kilifa gi. nga xam ne kuy jëfub dërëm ci loxoom lay tege kuy jëf milliard ci loxoom lay tege. Mhm. dëgg la Macky Sall jëf na fa lu rëy. cib loxoom ba mu gis ko. moom mu yéem ko. Mhm. ba yéene ko pay gu rëy ba ko koy waxal. waaye jàpp naa ne alaaji Mbàkke yu nag maanaam. jëf ji moom ci loxoom lay jaar waaye pay gi nag ci sëñ tubaa lay bawoo waaw waaw sëñ tubaa moom kuy jëf mën naa jëf ci loxol mbàkk yi waaye nag fay ga yaa ngi koy xaar ci sëñ tubaa xaaroo ko ci ci mbàkk yi tey nag jëf ju jàpp joo xam ne daa depp daa jëm ci sëñ tubaa mhm. jaar ci représentable sëñ tubaa jëm ci sëñ tubaa nga xam ne ci sëñ tubaa la jógee jëm ci sëñ tubaa waaw jëf jooju moom jàpp naa ne bu fekkee noonu ñu ko waxee noonu la demee sëñ tubaa wax mu koy def yaakaar naa jëru takki rajo déedéet loolu moom jaakaar naa ko mhm. bi ci desit mooy mhm. alaaji mbakki yu dafa yoraat loo xam ne da ko war a xam mooy nit ñi dañoo bëgg sëñ Touba ba yemal ba ba passé bëgg mbooleem kuy sénégalais rek am nga cofeel suñ Touba am na cofeel ci yow dëgg la waaye nag kuy mbooleem ku di tam tam biñ bëggee sëñ Touba mbakki yu moom day aw daggit ci moom ndax buñ neen ndakaaru li muy réy réy yaa ko fi nekkal kon aw daggit nga ci sëñ Touba kon li gën a li nit ñi gën a bëgg ci Sénégal mi ngi ci yow mm-hmm. nit nag li mu mënta réussir mooy li ñu gën a bëgg. nga jël ñu gën a bañ boolewaat ko ci muy muy benn nekk ci a jëm loolu mënta nekk. Hmm. te nag ni ñu bëggee sëñ Touba. Sénégalais dañoo bëgg sëñ Touba ba gëm ba yemewuñ ko dara. waaye nag dañoo bañ troisième mandat ba yemalewuñ ko ak dara. moo tax boo yoree liñ gën a bëgg da ngay moytu liñ gën a bañ. ndax sëñ tubaa mii mu fi nekkal ba mu ne Euh, wallahu yansuru maanaam ba mu ne saa nafxin man borom njariñ la waaye aw may lor bi laa dara riñ la wax mhm. su ne woon sama njariñ ak sama lor a tolloo net du gis mhm. kenn mhm. nit nit da jël genn wet nga nekk ca danag lim li troisième mandat bañuñu ko ndax ki fi ne dañ koy bañ sax jàmmi réew mi waaw te jàmmi réew mi nag jàpp naa ne ku koy wut baa nga koy dox alaaji mbàkki yoo la ci war a jiitu dëgg la defe naa ne yooyu laa ko bëggoon wax bi ci desit mhm. mooy saaborom borom def na ko kilifa ba noppi moom Mbàkke waaw saa def na ko kilifa ba noppi mooy te kilifa moom yàlla daa am xëkk ma jum ci wane mhm. mooy ñaari nopp ak gimiñ ñaari nopp ak gimiñ waaw gémmiñ mhm. mooy ah, mooy mooy mooy kilifa gi ñaari nopp yi mooy njaboot gi bii day féete nii bii féete nii amul genn kilifa goo xam ne sa ñaari sa ñaari njaboot amoo ñaari njaboot yu ñii gise nii ñii gise nii moo tax Sénégal dañuy tagg kilifa daal ne diw borom borom borom benn nopp la sëñ diw benn nopp la kilifa du mhm. yor benn nopp kilifa benn nopp bii da koy bàyyee ki wax ba noppi benn nopp bi nga bàyyee ko ki waxagut mhm. léegi nag dëgg naa dëgg boo dee kilifa gu mel ne alaaji Mbàkke yi nga xam ne aw la jiite ci ci gox bii nob bii na ko jàppe mooy ab puwaar a ko moom waaw mooy mooy ñi nga xam ne ñoom ci njabootam lañ bokk te féete ci puwaar mhm. nob bii ab opposant ko moom mooy ñu bokk ci njabootam te opposé wu dëgg la kilifa nag mooy gimiñ gi gimiñ nag saa yoo ko séenee mu weng wuti nob bii ñaawa ngay bëgg a ñëw saa yu wengee wuti nob bii ñaawa ngi bëgg ñëw kilifa li ko jik mooy day def ne gimiñ danaan nii ne not mhm. loolu mooy kilifa waaw su ko defee affaire wu margo boobu ñu fay waxit margo amoon naa ci ay xalaat ndax bi loo ci xalaat bi fa xalaat waaw Macky ko xalaat ndax damaa xam ne mhm. masaalikul naan jumaa la joo xam ne euh, murit yee ko moom mhm. waaye espace ba des na loo xam ne man gëm naa ne war nañ maanaam am nañ fa jumaa joo xam ne mën nañ fay jullitu waaye gëm naa ne mën nañ fa amaat espace boo xam ne buñ jullitoo ci jumaa ji ba noppi génn ñëw ci ci espace boobu muritu fa mhm. loola nag dara gënu faa jekk ab salle de conférence salle de boo xam ne suñ ko fa defee salle de conférence bi danañ fa mën di dundal ay bis mhm. ndax murit yi ku ne xam ne ne bari nañ ci Ndakaaru bari nañ ay bis waaye euh, néew nañ espace buñ mën a defee dara. Mhm. te nag développement mi ngi ñëw. te mhm. développement lu mu gën a ñëw baas ci mbedd ak takki rajo di di def tapage nocturne day dem ba jeex. loolu ñàkk a développé rek moo ñu ko fi moo ko fi bàyyi. Mhm. bu ñu développé baas ci mbedd day jeex te suñ pas-pas yi des fi. ñu war ko bëgg a dundal pas-pas yi te duñ am fu ñu ko defee. loolu il faut ñu man li ma doon xalaat. espace boobu ñu jël ko def ko ab ab ab boo xam ne tey jii bu xoolee moom laaj mbakki yu mhm. njabootuk sëñ Moustapha imam gii nga xam ne Grand Dakar lañ dëkk te sëñ Modou Fall bay jiite leen bis bu mag bi gën a mag Grand Dakar mhm. maanaam amatul espace bu ñu ko defee ku mel ne Abdourahmane Fall Tilala mhm. bisu bi mu daan def dafa dem ba fu ñu ko defee toxal ko ndax maanaam amatul espace bu ñu ko defee te loolu day gën di dem rek su ma sañoon nag dañ koy def ab salle de conférence boo xam ne Xaadim Kebe bu ñëwee tijj dugg jàng Abdoulaye Diouf bu ñëwee tijj jàng ba noppee fay ku am sa cant dem tijji ko bu ñu noppee loolu dina créer employé ca ña fa nekk te dina indi recette boo xam ne dina mën a duggaat ci jumaa ji mhm. loolu jàpp naa ne moo gën fopp ab margo parce que mhm. margo bi li ciy problème mooy murit daa am pas-pas bu ñu amee. mooy boo defaroon margo bi ba mu noppi ñu tëral fa mu néew ñu ne murit la dañ na nañ dem nañ dem defar ko ñu ne dañu xaar ndox ma ñu roote ji Touba andi ko sange ko ko. Hmm? xam nga man defar margo mën naa nekk waaye jël ndoxum Touba andi ko <laughs> te dul yomb. waaw te murit yet wax dëgg yàlla noonu affaire dee dañ ko seexut ak dakaar ñun dañ fee ñëw <laughs> dañ fee ñëw pour dund. <laughs> boo amee luñ fiy dunde nañu ko jox. Hmm. affaire dee moom bàyyi ko ak Touba wax ñu ne ay sang ak suul ak ba affaire margot yooyu moom. Mhm. na ko jël moom nag. Mhm. xam naa ne xalaatu margot war naa mën na ne nag. mën naa ne ci moom ci ku mel ne moom. Mhm. li ko def mooy. kilifa bu dee dañ laa dénkub dëkk. ñi xiif lekkuñu. waaw ñamar naanuñu. ñi feebar duñ faju waaw njëg yëpp seer ba kenn mënatu koo jënd. boo amee doom. ba ngénte la dangay ngay siif baa nga këf doo ko ngénte waaw waaw wala boo amee loo ko ngénte dem hôpital di jëli doom ja pour ngénte ñu ne la deena ca hôpital ba bu dee réew mu mel nii ku ko yor kilifa ku ko jiite mm-hmm. war ngaa xalaat margo yu yaatu ndax nit ñi dee leen dese moom war naa mën a wax yi marko waaye nag nañu ci nañ nañ baal defal ñu ko beneen espace waaye mm-hmm. moom foofu nañu ko bàyyil noonu mm-hmm. waaw jërëjëf mm-hmm. loolu daal laa ci doon soññeer laa ci doon wax rek lépp nag ay xalaat la yoo xam ne ak i question yoo xam ne du offensé du dara maanaam day day lu xew ci pénc mi ñu war koo jàngate ci pénc mi nag jàngate ko fi dëgg la waaw en dehors loolu lépp nag alaaji mbàkki yu moom suñu kilifa la te nangul nañ ko loolu jërëjëf Cheikh baara macha allah kon li nga xam ne moom nga wax mbàkk yu fay moom. da hmm. ngir mu daal ci bàyyi xel xam naa ni maam Mor Mbaye buy pare di def vidéo sabab ñu ñëw ci beneen point boo xamante ne euh, moom la ñuy wax li xew ci penc mi nga xamante ni bii jaaxal na nit ñi muy ministre de l'intérieur mi xëy rek. daal dee hmm. def loo xamante ni bii bi ñu déggee ñi wax wàllu droit ak ñi wax wàllu kii nee nañ lii daal. suñu ko gis ci réew masuñu koo gis ci àddina yow noo jàngatee ministre de l'intérieur ak dogal bi nga xamante ni bi daal xëy na rek ne ko bëcc ci pénc bi noo jàngatee lool waaw dogal bi mm-hmm. weesuwut waaw Antoine dañ ko ne arbitral mm-hmm. moom mu bàyyi fa arbitre ba di entraîneur an dañ ne ko arbitre muy dem di entraîneur yi entraîneur mooy ñëw ci équipe liste équipe bu jàmbur waaw nga ne ñii ñooy pro ñii ñooy titulaire yi nga ne mu ne def léegi génne naa leen teg naa euh, teg naa ban waa ban bi teg naa leen titulaire daal dem Aliou Cissé la Aliou Cissé arbitre lañ ko def euh, mu dem di entrepreneur, dem ci liste benno bokk yaakaar daa ne ana ana ana ana ñii départ ah. ne ko ñi ngi nii mu ne yéen départu leen wala yéenay départ waaye kii du la remplacer kii du la remplacer loolu coaching la moom arbitre lay jaawale mm-hmm. ci mooy lu am bii mu def ah. xam naa ne lu jamono gën a dem mm-hmm. moom dana gën a saf xorom ndax moom nitu yoon la koo xam ne mm-hmm. aw nag woo xam ne bopp ba daa dagan gen ba araam moom kenn mësu koo gis te anduwaan moom loolu la ñu bëgg a wax mm-hmm. bopp bi moom maanaam nag wi nag genn bee araam waaye bopp na wala boog na yàpp bi waaye na ñeex mi xaraam loolu amul ah, waaw wenn nag wi ci wenn nag wi maanaam boolub ndawal ñu ne ñeex mi xaraam na waaye yàpp wa dagan na <laughs> loolu mënta ne anduwaan maanaam li mu bëgg a wax dafa ah. mënta nekk <laughs> doy na waaw ma ñëw jox la aw dix mille franc ne la am. waaw genn wet gii nag moom foo béyee la. foo waaye gii baax na. waaye nag mën nañoo fexe ba xaajoo ko jariñoo ko loolu amut. amut moom. Antoine li mu wax. amut ci droit amut ci xam-xam. amut ci xel mu rafet. amut logique bu mu ko wéer. waaw bo démé ci euh, code électoral bi nga xamné hmm. mo ñu teunk ba tax ñu mëna a dem ay élections. nga xamné ci lañ définir li parité li parrainage li caution euh, bi. dem dem no caution bi ngay joxé euh, caisse de dépôt de consignation ak député yi ñaata lañ ak yan critères lañ am. lolu bo démé L 149. Uh-huh. L 173 L 174 L 175. da ngay fekk lii lépp dañ ko ciy définir amuñ lii Antoine wax foo ko ciy fekk. kii bu jógee Paris neex. yaa ngi may dégg allez-y. boo demee loolu doo ko ci fekk léegi nag ñu ñëw ci lii mu teg daane irrécevable la bëgg a def maanaam dafay def irrécevabilité ci ci ci kii nu mu tuddati ci euh, liste yi loolu L 178 moo ko définir soo demee ci L 178 da lay delloowaat ne la maa ngi lay delloo ca L 149 parce que wàccoo woog moom mm-hmm. wala maa ngi lay delloo ca L 173 wala 174 wala 175 parce que lii ak lii nga wàccoowut doo fekk loolu kat code électoral la. c' est vrai 2021 bii. bi ñu defee e bi ñu defee dialogue politique ba noppi lañ ko tëgg liggéey ko. waaw waaw loolu xam nañ ko bu yàgg. xam nga Sénégal lan mooy mm-hmm. problème bi. Mm-hmm. gis nga euh, Moustapha Diop mii ci Walfadjri. waaw police bii ci buntu Walfadjri. waaw gënu koo xam lu yoon di tere ak lu yoon di digle. Mm. dañoo may police bi nag. bu mm. gisee lu dul yoon mu faj ko. Mm-hmm. sañ-sañu faj. lu dul yoon la Moustapha amut waaye lu dul yoon ñëpp a ko xam Antoine foofu mu toog du daa gën a xam nit ñi xam am xam-xam moo moo ko fa teg de dañ koo mm. may sañ-sañ buñ mayut nit ñi waaye fi muy liire fa la ñëpp liire ndax code bi moom ci ñun mm. ñii lañ liir bind ko mm-hmm. ñun sénégalais yi ci ñun lan liir bind ko kon ñun war nañ koo mën a liir xam ko waaw nan bàyyi loolu gars yi dañ koy compliquer yooyu yooyu du daara daanaka la ca ëpp solo mhm. fii ma toog boo ma ko doon laaj ma di la ko teqantalal benn par benn maag ko seexu naa mali toog mhm. daanaka mokkal lañ ko koy def voilà loolu du dara ay ay ay ay mbind dong la yoo xam ne <laughs> allez-y la <laughs> gars yi dañuy takk seen weer yi dina ko compliqué dara compliqué wu ci mhm. ci askan wi lañ liir bind code bi kon askan wi ku ciy liir code bi da ngay xam li ñuy wax noonu dong la demee waaw léegi nag waaw doo ci fekk laa wax foo xam ne da lay définiral ne la maanaam titulaire bi ak proportionnel bi gis nga L cent euh, cent quarante neuf bi. Hmm. dafa lay wax ne soo demoon ci benn gox. waaw fu mel ne tey ay renard nga xam ne benn député la am. waaw mu ne même parité bi da koy respecté ba su fekkee député bu góor nga teg. Mm-hmm. suppléant am day nekk jigen su fekke ya. député bu jigen nga choisir suppléant bi day nek góor mais seks jël ñaari sexe yu nuro mm-hmm. nga jël ko def ko ben ben mu def ko titulaire ak suppléant loolu lan la lay wax moy titulaire moy suppléant suppléant moy titulaire mm-hmm. yaa ngi dégg loolu la démé Antoine amul lenn lu mëna tek loxoy nit ñi te barki déem boo njaay liste titulaire ben yewi Dakar bi mo am problème moy liste bi Barth jité waaw titulaire ya am problème mom mu bolé titulaire yi ak suppléant yépp dak tey mu bëgg ne léegi suppléants yi baax nañ waaye titulaire bi baaxul loolu fan la ma sa am ah, na wax ne rek yeew yi baax lewut bennoo baax dem leen seen yoon mhm. wala mu bind ne yeew yi baaxle na kii mhm. baax kii baaxle na mhm. wala mu bàyyi leen ñu dem ñu dem ñu dem conseil constitutionnel. Ah. mais moo gën ñu arbitre loo ko mu bàyyi fa arbitre ba dem di entraîneur. waaw mm-hmm. ah, macha allah Cheikh Bara dañuy ñëw rapidement daa dee dem sax ci ki nga xamante ni kii moom la ñuy wax président Macky Sall moom it listam yi génn na waaye dafa mm-hmm. mel ni am na ñoo xamante ni bi ñu ngi commencé ñaxtu rawatina waa parti socialiste sax dégg naa sax ña ngay fippu ndaw ya ah. nee nañ amitam Mbengue Ndiaye ak et cetera. liste yi bi mu génnee daf mel ni coow tamit. dama laa dama laa waxoon fii na la. Mm-hmm. Aminata Mbengue Ndiaye mii. ak Moustapha Niass ak Idrissa Seck. waaw Macky Sall taxawal na leen di leen takkali médaille. Mhm. waaw seen médaille yooyu moo moo moo moo moo ndombay xonq yooyu ñu takkal xarum tabaskee yam takkaluñ ko waaji ngir mu mucc waaye dañ koy takk ngir tabaskee ah, ko. seen médaille ya nag moo nekkaat ñii. Eh, ba leen Macky Sall yi defaral médaille. waaw booba ma ngi bind liste bi. xam na ne da leen di trahir. Oh, mu di leen décorer di leen ko di leen ko meebe. Mhm. waxoon naa leen ko fii. mooy seefu Seck. Mm. Augustin Tine. dafa mm-hmm. Macky Sall teg. ndeysaan waaye tegu fa Idriss Seck. Oh. amul benn localité. Mm-hmm. man buñ xam boo xamante ne bu am dayo la. Mm-hmm. boo xam ne PS wala PF wala AFP. wala réew mi ñaga ca doo ko oh, fekk. Oh. léegi nag liste bi. waaw am naa ciy njàngat. aywa parce que ni ma ko gisee. dafa mel ne Macky sàll xaw naa am tuuti dut. Mm. ci nekk mën nañ koo gañe ci élection yi. ah dut lu tax nga wax lool. ci ni tëggee liste yi. Mm. boo xoolee fu mel ne dakaar waaw ñàkk a mën a wóolu ne dina ko gañe mhm. moo tax ñim bëgg sarxe. ñim la fa teg daal di jël ñi nga xam ne yaakaar na ci ñoom ëllëgu politique mu sànni leen ci national bi. Mhm. maanaam fu doo fekk mukk ku Macky Sall bëgg. Mhm. koo xam ne bëgg naa des ak yow ngeen di politique. waaw mu jël la dugal la ci liste benn département. daanaka ñoom ñëpp da rokkas ci ci national bi. ñi nga xam ne nag yekku na pour sarxe leen. mu sànni leen fa boo xoolee fu mel ne Linguère nga xam ne wóor na ko ne Aly Ngouille mën na koo gañe da ko faa teg boo xoolee fu mel ne euh, fa euh, Abdoulaye Daouda Diallo da koo teg tête de liste mhm. Mansour fay mhm. jàpp na ne Ndar mën na koo gañe mu teg ko fa mhm. mais gis nga ñoom Abdoulaye Diouf Sarr ak Abdou Mbaw ak euh, ñoom jóob Seck ñoom nu mu Euh, mooy bojo bojo yi. ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom hmm. euh, kii euh, nu mu tuddati. <laughs> gaa yëpp rek ay Malick Diop ak. Ah, ay ñoom ay ñoom Amadou Ba. maanaam ñëpp da leen a jël sol leen ci liste national bi. Hmm. rien que pour bëgg buñ buñ perte département yi tamit ñooñu mën a rëcc nekk. nekk ci pour parté mën a des. Hmm. soo xoolee noonu la tëggee affaire bi. bi ci des mooy. waaw national maanaam maanaam maanaam national bi. boo ko xoolee tamit ñi ci dul nekk député. dafa hmm. bari boo xoolee gone Koseer yi nga xam ne dafa yaakaar ci ñoom tamit. Hmm. diggante vingt ba ay trente. Hmm. foofu ñi nekk député ña nga fa. Ah. parce que dix premières yi ba quinze premières yi ñim teg nga xam ne daa bëgg ñu gañe rek. ñoo ci ëpp ñi nga xam ne buñ gañee dañuy nekk député. yow xam nga ne Mimi Touré mi ngi espérer premier ministre. wala wala boog mu jiite assemblée nationale mais bu dee député ak rek du ko nekk. waaw xam nga ne Amadou Ba. toogul foofu di nekk député. Mhm. xam nga ne Ablaye Balde. toogul foofu di nekk député. xam nga ne Diouf saar nekkul foofu ay député du Mbow def na ñaari mandat xam nga ne soxlaatu ko xelam a ngi ci ministre. waaw maanaam ñooñu la jël teg leen pour bëgg bu ñu din bu ñu génnee. Mhm. gone APR yi ci des nga xam ne ñoo nekkoon ci ay vin vingt nangam. Mhm. mu de mu ñëw jege si nekk député. maanaam technique boobu la def. d'accord. am na ci loo xam ne tamit seetlu naa ko te xaw naa ko xaw na maa naqari. mooy gis naa ci dégg gis naa ca ku ñuy wax Koura Ndiaye ñu ne Koura Makila. Koura Koura Macky men mii nga xam ne moo nekk ci internet bi ah. Koura Macky nag ab sénégalais la war nañ ko mën a investir mhm. waaye nag Macky Sall dafa taxaw fii bis bu nekk mën nañu internet bi saaga yi ngeen fii saaga baaxut ñi mhm. koy def baaxunu mhm. Koura Macky nag ku saaga taxut nga xam ko saagaa tax nga xàmmee ko moom waaw ku saaga taxut nga xam ko rek saagaa tax nga xàmmee ko mm-hmm. su ko mënee jël nag investir ko ci listam waaw ngir yàlla nag bu mu taxawati naan ñu saaga baaxut ah, ndax ah. bu saaga baaxutoon du jël kuy saaga di ko def ci listam dëgg la dégg nga moo nekk numéro 29 numéro numéro 29 ci liste nationalu APR bii hmm? waaw be bokk benn bokk yaakaar pour a Macky mii moo fa nekk loolu nag kon dafa wuute ak lim ñu doon woo nañ hmm. bàyyi saaga yi ci internet bi ndax du lu baax ka ca dàq ñun ci saaga jël na ko def ci listam kon nag ñi ci des nag bu leen bëggee wax saaga baaxut loolu mun amuñu nopp yu ñu ko mën a dégloo bi mhm. ci des mooy waaw dem na RFI dem na kii mm, Jeune Afrique mu ne moom opposition fort la yor opposition forte opposition forte nag mhm. bu fekkee Macky Sall daf koo yore mhm. tam waxoon na ñoom opposition bi nekk seen ordinateur kacc kacc kacc dong lañ fi nekkee waaw tey nag jógee nañ ci kacc kacc nekk nañ opposition forte waaw loolu ba léegi mooy mi nangu calculer ne kii may bëgg a daan wala kii may bëgg a bëreel kat bu ma daanee. waaw bu bu leen jàpp ne yembara ma daan. waaw waaw maanaam mi ngi xool fi muy daanu daa mel. waaw parce que nan la naar ba defoon naar bi daa ñëw ci làmb ji. ñu mhm. ne eh lu xew ñu ne ko làmb mu ne ku daan looy am ñu ne million. Mhm. ku daanu ñu ne cent mille rek mu futti ko. Mhm. mu futti ko defaru ba jekk rek ñu indi benn waay muy taxaw mu xool waa ji waa ëpp ko sut ko ëpp ko doole. ñu ne ko kii ngay bëril. waaw mu xool ko ba mu yàgg mu ne ngeen ne ki daanu lu muy am ñu ne ko cent mille mu ne tee nga ne yokkal kii daanu <laughs> waaye dama leen kay wax Macky Sall liste maanaam bi mu dalee. <laughs> war na yooyu yokkal ki daal <laughs> naar ba daanu la naar ba waratu la bëre parce que <laughs> yokkal leen ki daanu kooku darta def benn jom. waaw gis nga nag. Mhm. liste liste Macky Sall bii. waaw. su fekkente ne liste bi moom baax na ndax ñi mu ci def it ñëpp nag vraiment. Mhm. baax na daal. Mhm. waaye. bu ma paree ci législatif yi dinaa doog a wax ci sama troisième mandat. kooku day reculer vote bi. waaw. troisième mandat bi mu jël lekkale ko ak ak ak ak législatif yi. Mhm. ku contre troisième mandat man na ci man nga contre listu Macky Sall mhm. lolu da koy indil jafe-jafe. Mhm. bi ci des. euh ku melni ay Moustapha Diop bu Louga. nga xamne yow mom nga am Louga mo lay gañeel. nam xeb na député bëggu bëggu koo mais soko ko jëlee ko ci liste bi. soo nam wara sawaré saware du ko saware dem gaay duñ la wateel. bi ci des moy bu dundu gi yoké lu mu tuti tuti dina la laal ñi nga andal problème buñ def lu melni li ngay dégg ci farba yu mel non yépp day wañi vote ak di wañi sa capacité mm. bu loolu lépp jallé nak waaw mbirum goor jigen yi waaw ak ensemble ni mu lëkkaloo bu ci mm-hmm. communiquer wul mak Sall man na am jafé jafé ci élection yi ñu jëm d'accord voilà lolu lay wax. d'accord jerejeuf Cheikh Bara defe naa ni temps bi jeex na euh, danaka 2 minutes bon Cheikh Bara votre séjour qui vous devez qui en Paris. euh, hmm. euh, euh là-bas en Paris. euh bon le le calendrier de votre séjour à Paris. Cheikh Bara oui léegi nag bala bobu ah. damay wax né tubaab yaa ngay dégg fii lii tubaab yi ngay waxal nag. na ma pare maire yi may déglu. Eh, maire cuuraay maire cuuraay daal laa xam ne nekk Paris laay waxal man fi damay wax waa Sénégal ba noppi. maa ngi euh, tàggoo. kon bëgg a dem fële incha allah ci tukki bu gàtt. Mhm. Euh, léegi nag fii ñuy faje lu ci ëpp ëpp ëpp ci liñ daan def insha allahu yàlla dana dogal danañ ko man di continuer kuy faju lu mm-hmm. hémorroïde mm-hmm. siti mm-hmm. ballottement asthme diabète tension yooyu ak sangat yi parce que yàlla dafa dogal am nañ man du man kese may liggéey am naa équipe li may doog a ñëw ndakaaro awma fi semaine dafa am ku ñuy wax Mariama Seydi dafa jël doomam def ci yor saagam ñëw ne ma sëñ Baara sama doom ji may naa la ko xale boobu maa ko yor depuis keroog ak tey ba mu takk fi jabar booba day booba day doo ko toll ci jàng école ak dem na ba am bac ba mi ngi université am na soxna ma nga sama biir kër kooku xam nga ne lu may liggéey rek xam na ko mën na ko mooy Adama Ndiaye hmm. bu dee ku mel ne sëñ Fallou ñaan keroog ba may ñëw ndakaaru gi ñoo ànd mu yoral mab saak kon xam nga kooku def nañ lu ëpp fukki at amul lu ko ump ci li may def hmm. bu dee ci sangat ak lu mu mën a doon lépp lu may def rek xam na ko ne ma ko xamee hmm. ku mel ne ñoom bàcc gajaga ak sëriñ daam Mbacke mii nga xam ne way juróom sëñ Baara Mbacke moo ko jël ne ma am jàngal namel na yow mi ngi fi ñom ñepp dal pour gàttal bàcc gajaga gak sëñ Cheikh Touré ñom ñepp ñi ngi fi képp ko xamné dal aljuma yek samedi dimanche li ci ko dal moy bisu fajr bi lolu mom dañ koy posandi ba ma ñew ndax yooyu mom ay yef la yo xamné ne kenn mënu ko batalé faju sangatu bayre sangatu ubi ko yooyu bo ñewé ci kër ga inshallah ta te ci téléphone yi di nga ko jot bu dé cabinet touba bi euh, ma nga fa sama rak ju ma bokkal ndey ak bay mo fa nekk di jili ndjay ko bu dé du jëm ci séré ballonnement biir buy def kur kur kur yaram wuy tàng gu luy metti estomac ngay géex di am reflux gastric dem toilette air rek di génn awra wuy dellu ñàkk ngóora yooyu yëpp boo ñëwee insha allahu taala ca cabinet ba ca Touba danañ la ko fajal boo ñëwee fii ci Ndakaaru danañ la ko fajal suba du fi nekk waaye ku bëgg a faju mën ngaa ñëw asalem euh, ci ma si euh, Tëngéej si ta sëñ Mansour tribunal su 48 boo ñëwee dañ ko fekk njaboot gi ma fa bàyyi insha allah ci wàllum paju mi ak sangat yéeg yëpp boo ñëwee dañ ko fa fekk bu dee France bu dee France waaw lépp lu ñuy faj fii itam <laughs> Cheikh Bara France la ca lépp lu ñuy faj fii insha allahu muy ci wàllu ngóora wàllu hémorroïde français wàllu jabet wàllu rab sangatu ndombay tul yeeg lépp insha allahu moom fu ñu mën a jëm moom ñoom moom a ànd ku ndombay fii nga koy yeno def léegi yëpp yëpp yëpp rek insha allah lépp rek lu ñu ci waaye so lépp rek ci gàttal laa wax waaw léegi nag euh, bu ko defee kuma bëgg a gis Euh, maa ngi France. Mhm. suba ci àjjuma ji. Mhm. samedi dimanche lundi. Mhm, su mardee damay dem Belgique. ci sëriñ ci sëriñ Manir Ñang euh, Paris. waaw maa ngi ci Belgique ci sëriñ Manir Ñang laay dal. Euh, ci nu mu tuddati sax Berlin. non non du Berlin non non eh, ngi capital Berlin après laa fay dem ah, ah. Allemagne après demoo fa Bruxelles dal mhm. foofu ca Bruxelles lay nekk ci Alaaji Madina Ñang mhm. sama jëwrin ji fi ñëwoon fii àndoon ak man ci mbàkk bi moom moo nekkal foofu ah, Belgique ci jëm mhm. suñ fa euh, mardi mercredi ba jeudi ci guddi fay dem euh, Allemagne Allemagne maa fay fekki Fafana di suma taalibe bu baax mbokkum taalibe la Mm-hmm. di ak ak ak ak ak sama benn xaritu regaman bu ñu wax euh, sans Louis tax nga yax boobu marre sànq sans Louis kooku kooku jógee na ah, Allemagne ñëw fii bu yàggul def ak man 15 jours Sénégal waaw waaw te moom du sax musulman mais yàlla moom a booleeg moom. mais Allemagne ci fan ngay danaa nekk Berlin ak yenn dëkk yi ma xamut. waaye daal mm-hmm. danaa fa nekk ci Jaylaani. waaw ak Kayre. Mm-hmm. ak Abdou jaata ak sama gaa yooyu laay fekk ji. d'accord incha allahu taala su ma fa jógee. daal di ñëwaat Sénégal incha allah. kon da def euh, France. Belgique Allemagne Allemagne donc la France Belgique Allemagne kon que moy si nga programme ah, fofu. Inshallah. donc Cheikh Bara borom def gis Allemagne nak dañuy téré xam oui ce mon pays maintenant c'est destination à la Paris. Euh, <laughs> destination à Paris. <laughs> li nga incha allah Ndiaye merci rek waaw kañ <laughs> incha allah jërëjëf di wax Cheikh Bara Ndiaye ngoog def gis di fàttali numéro téléphone bi fii di 77 610 81 81 77 610 81 81 nga jokkoo ak Cheikh Bara Ndiaye borom def gis sa aajo faju dégg nga ko ni mu waxee ci programme bi day continuer fii ci biir réew mi dina continuer ba mu des rab yi ñu yor rab nañ taxaw xaar ko te xam ni seeni rab daña gut après bu ñëwee dina ko jéem a dindi mi ngi ci voyage bi foofa ca Paris ak fa nga xam ni moom lay wax Belgique ak Allemagne di ko wax ne ko Allemagne dañ fay interdit caaya booy dem na nga sol blouson léegi nga yàgg <laughs> non saa njëgu du dem en tout cas ñu ngi koy euh, souhaiter un très bon voyage mu dem ak jàmm ñëwaat ak jàmm fekk fi jàmm yàlla mën na ko njaboot gi aussi suñu borom teg ci loxo ba mu dellu si waat incha allah naa ñu ngi la ciy nuyu ak Pape jot nag ñoom Baye Mbaye ak Jileek ñi ñëw ñëpp ñu ngi leen di ziar di nuyu nag maam daam ak euh, sëñ Fallou sama xarit boobule Cheikh Loum tey ca nga bokk ayca ñu dem ànd ak partenaires yi dellu si waat